ñu leen di nuyu di leen ziyaara ñaan borom bi tabaraka wa taala kàddu yi fekk ñëpp nekk ci jàmm ànd ak xerewlu ci li nga xam ne moom la ñuy waaj a waxtaane mu nekk waxtaan woo xam ne wu am solo la woo xam ne askan wi soxla nañ ko bu baax a baax yitte woon nañu ko mu nekk ci waxtu woo xam ne waxtu wi leen war a waxtaan lu mel nii la balaa waxtu wi waxtaan wi di tàmbali nag ñi nga xam ne ñoo organiser waxtaan bi muy jamiyatul qalam al islamiya ñu def tuuti rek ci présentation boo xam ne dafay aju ci mbooloo boobu mu nekk mbooloo moo xam ne jund du yàgg juddu bu yag lo xamne mat na sax ñaar fukki at yu tegal mbooloo la boo xam day yëngatu ci jang ak jangale di Kota Sare. ci julit ñi len jangal di len wan yoon wi nga xamne mom la yonent bi alayhi salaatu salaam awoon doon jangal nit ñi pour ñu aw ci ci loolu la yëngu mu nekk mbooloo boo xam ne am na ay boole yu bari yoo xam ne mi ngi ci biir mbooloo mi muy wàllu jàng ak jàngale wàllu social wàllu éducation ak wàllu yëpp ak wàllu yéen ñi ci seen diine mbooloo la boo xam ne itam. day yëngu ci ay yëf yoo xam ne maanaam njëriñal askan wi la ci gox yu bari donte génn gunu dem ci gox yu sori waaye am nañu ay yëngatu yu ama am solo yoo xam ne dañ koy amal ci gox yi gën a jege kon bokk na ci mbir yi nga xam ne jot nañ ko taxawal mooy taxawal nañ ni benn école ni daara boo xam ne dañ fay jàngale bi lislaam mu am jàkka joo xam ne julli ñi fa la ñuy jooxee seen waxtu yi julli waaye jàkka jooju itam di def liggéey bu am solo mooy am na ay njàng ak njàngale yu fay am ay waxtaan yu bare bari kon loolu bokk na ci ay réalisation yoo xam ne mu assasatul qalam def na ko ñuy woo nag jullit ñëpp ndax liggéey lislaam la ñu ñëw participer bokk ak ñun liggéey boobu kon ku ñëw rek mën ngaa ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi liggéey bi du dara lu dul fexe ba jullit ñi nga xam ne jotaguñu woote ci yonente bi ca na nga xam ne noonu la ko sa alayhi wa sallam doon wootee ñu jot ci jàng xam seen diine kon loolu ñu ngi ciy woo ñëpp ak li nga xam ne ay activité la yoo xam ne dañ koy amal ci wàllu finance ci wàllu physique ak wàllu yëpp kon ñu ngi ciy woo ñëpp mbooloo boobu ku jiite mooy oustaz Ahmed Diène mi toog sama càmmoñ moom moo ko jiite yàlla yàlla wattu ko sàmm ko sàmm mbooloo bi kon tey waxtaanu tey bi thème bi mooy jafe-jafe yi nga xam ne dafay am ci ñaari way dencante yi ñëpp xam nañ ne ñaari way dencante fii ci sunum réew bari na ay jafe-jafe yi ciy am yu bare bari yu ci bari ci tribunal bi lay mujj te mënoon na bañ a àggu foofu ndax niñ def ba tàkk ko ci jàkk yi noonu la ñu amee ay solution yoo xam ne mën na ko régler te na xam ne mooy l'islam ba problème yi jeex moo tax kon thème bi mooy problème yi nga xam ne mooy am ci sëy yi wax sabab yi wax itam solution yi nga xam ne moom moo koy réglé loolu mooy thème bi loolu ja yaakaar naa ne kenn ku ci nekk mën ngaa teewlu bu baax pour taataan yi nga xam ne moom lañ fiy wax moo xam looy jëfee la wala looy saa ñeneen yu jëfee ko ndax diine ji noonu la loo ci jot rek nga jottali ko keneen ki nga xam ne nag moo ñu defal waxtaan bi ñu bari ci yéen xam nañu ko muy sunu mbokk di docteur Sidi Yahya Ndiaye dëkk dëkk bi ñuy wax campement Ngekoof juddoo fa it mu nekk koo xam ne ku yëngu ci wàllu jàngale ak wàllu jàng jangan al alquran ci loxoy way juram jangan góor jang ci moom itam yenn téere yi nga xam kami dañ koy mai fi yo xam yi nu xam la moy téere yi ñu njëkkee fii ci sunum réew yu melni ay lakh dara yo ay risalaat yu yo yi nga ci walu fepp la jang lu ñi tuddé al marhala ci école bi ñuy wax madrasatu rahma nekk campement Ngekoof ba fa pare dem tu bi ñuy wax Louga jang fa marhala i'dadiyya ak thanawiyya man fa la defee collège ak lycée ginaaw lolu itam ci école bi nga xamné ne Manarul Huda ginaaw lolu suñu borom dogal mu dem université bi ñuy wax al jamia al islamiyya bil madinati al munawwara fa la àggale ak njangam ci faculté bi ñuy wax kulliyatu da'wa moy qismul aqida manam ci walu pas-pas mané fofé la amé doctorat ci walu al aqida kon koku moy ki tok ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala yalla sam ko waddu ko mom moñu nara ci problème yi nga xamné da fay am ci ñaari way dencante indil ñu yenn sabab yi waaye tam indil ñu solution yi nga xam ne moo koy faj kon balaa ñoo bàyyi koo fii rek incha allah ñu ñaan borom bi problème yëpp daal di jeex ndax buñ indil sabab indi solution yaakaar naa dañuy dem rek daal di jëfee ñii nuyu nag ñi nga xam ne ñooy ñi ñu dalal ñi ñu dalal mooy waa quartier bi waa cité bi di ci jiital euh, délégué di Ousmane Wade ak ñi nga xam ne ñooy imam yi tàmbale ko ci imam Dem imam Diagne ak ñi nga xam ne ñooy notable yi koñ bi yëpp euh, ñu mel ni ñoom bien sàmm ñoom ñëpp ñu ngi leen wi ñun ñëpp ñoo ko moom seen waxtaan la ndax fii ñun ñëpp fii la dëkk ak yéen dëkkin woo xam ne wu rafet la ñu mën ñoo dalal ci gox bi pour waxtaan wi mën fee am kon incha allah ñu leen di présenté mbokk yëpp di leen xamal ne kon waxtaan bi incha allah dañu bàyyi cheikh docteur mu tàmbali waxtaan bi incha allah fal yatafaddal mashkuran mahjuran wa jazakumullahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بوك جوليت نيو لندي نيو شي كادوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di am mbégte bu baax ci dajeeg lenn ci sunu mbokk jullit pour ànd nafar lu am solo ci sunu wàllu diine ak sunu wàllu àdduna muy tomb bu aju ci néegu sëy Euh, ñu jëm nag ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy faral di am ci diggante ñaari way dencante ñi lan mooy li koy sabab cause yi ak lan mooy euh, saafara yi ci jafe-jafe yooyu mbokk jullit ñi lii di jokkaloo ci wàllu sëy mooy relation bi jëkk a dox diggante doom aadama ak moroomam sëy mooy li nit jëkk a séq ak moroomu nitam bi yàlla bindee sunu maam aadama def ko daldi di bindal soxna muy sunu maam xawwa ñu ànd ci sëy kon moom bi nit laata doon dara góor bi muy laata doon baay bi muy laata doon nijaay jëkkër la jëkka doon jigéen itam bi muy laata doon yaay wala muy bàjjen wala leneen soxna la jëkk a doon kon relation boobu relation bu cosaanu la ci taarix ak histoire doomu aadama loolu di wone am solom muyit euh, luy aar góor di aar jigéen ci wàcc yoon ci diine mu itam euh, yoon walla anam bi nit mën a jaar pour njaboot amul njaboot ak sàmm leen muy li xeet wi di bari nga xamne barik xeet wi yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam sallam ndamam la kerem lay don euleuk yowmal qiyam sey don li nga xamne ne assuré desug nit ñi ci aduna batay. bu nit ñi amone ben siècle bu ñu dund sey amul jokkaloo goor ak jigen amul kon kenn du juddu su ko defé ñi fi des dañuy magal jogi aduna kon li fi bàyyi nit ñi ba tey ñuy juralante continuer àdduna di dund di continuer di nekk nit di am mooy jokkaloo ci wàllu sëy looloo tax ak yeneen yu am solo ci wàllu sëy moo tax sëy nekk lu am solo ci diine ay tiyaaba yu rëy nekk ci ay kaaraange yu bari Nek ci ci goor ak jigen yépp waye mu nek itam karange même ci sen njabot parce que dañuy judd fekk ndeeg bay yu len di encadrer di len yar di len jangal kon amna solo ci walu diine waye amna solo itam ci walu aduna motax tax euh, mbollem diine bu mos wacce ci asaman sey day bok ca yafa waccale mu nekk ca farata nekk ci sunna nekk ca lu ñu soññee ci wàllu diine yi régime yi mos a àdduna itam jaar fi amul benn bu ci mos a sàggane li nga xam ne mooy euh, sëy diine joo gis rek ñu ne sëy bokk ca xamal ne diine ju wàcc yoon la bu dee dañ koy askanale yàlla waaye philosophie boo mës gis ci àdduna mu sàggane sëy itam xamal ne du doon philosophie bu bari ñu ko topp parce que ñàkk sëy dafa dafa wuuteeg natiiru doomu aadama yàlla daa moo ñaale nit bindaale ko ak li nga xam ne mooy euh, bëgg dugg ci néegu sëy bëgg a saytu bëgg doon bay bëgg doon yaay ci jigéen ak yu ko niru loolu yëpp day wone waxtaane ko nekk lu am solo ci côté boo ko jaaree rek muy gën a tee am solo nag ci côté biñ ko nar a dugge tey te mooy teg baaraam ci jafe-jafe yi ciy am ndax itam euh, relation doomu aadama yi ak mu ci mën a doon du ñàkk ay jafe-jafe yi ciy am ndax doomu aadama matul mata dem googu day feeñ ci ci léppam ay jëflanteem yépp moo tax sëy itam comme yeneen relation yi yu nit di séq day am ay e, jafe-jafe waxtaane nag tem bu mel nii te mooy jafe-jafe e, sëy bari na ay njariñ lool bokk na ci ay njariñam nit dina ci xame ay mbir yu banaaloon ci moom yoo xam ne jàppoon na ne du dara wax ko du dara def ko du dara loolu lay jàpp ndeke fekk na ne lu mën a indi ay jafe-jafe sëy la te jafe-jafe sëy yi gën a mën a yàq sëy mooy jafe-jafe yooyu nga xam ne mbir yooyu nga xam day indi ay jafe-jafe te ki koy def yëgu ko du ci bàyyi xel fekk ka mu sekkal sey bi mu ngi cay loru mo ngi cay am ay problème mo ngi ko cay mere te du ko yegg te loolu lu bari la ci goor ñi ak ci jigéen ñi jigéen dinay mbir lu banal di ko waxtaane wala mu di ko melowoo te loolu dara gënu ko doon naqar ci góor comme ni góor mën a aadawoo di waxtaane yenn mbir wala di am yenn comportement yi te eh, dara gënu koo gaaw ci ci naqaral jigéen dinaa la ci jox misaal góor gu bari lu muy tagg ay ay jigéen ci kanamu soxnaam ay jigéenu jàmbur léeg-léeg góor di def loolu ci côté dama bëgg sama soxna roy ko ci côté diw dafa baax may wax mbaaxam te fekk loolu bari na lu mu mën a déranger jigéen nga bari looy tagg moroomu jigéenam ci wetam ak yu baree bare bari yoo xam ne góor dina koy def fekk lu gaaw a lor jigéen la lu ko gaaw a merloo ci beneen côté bi itam jigéen bu toog ak boroom këram di tudd coofet beneen góor tudd banaan kooku dafa coofe masalan léeg-léeg loolu man nekk lu lu banaan lu dul dara ci yenn jigéen yi nga xam ne amuñu xel lu bari xamuñu li gën a gaaw naqari góor ñu ñu di ko waxtaane te fekk loolu dara gënu koo gaaw ci tàngal xolu góor li ma bëgg a wax mooy dina bokk ci njëriñu waxtaan wi mooy dina teg baaraam ci loo xam ne góor wala jigéen yëgul woon ne mën naa indi problème mu sëy te fekk loolu dafa bokk ci liy indi problème mu sëy thème bu mel ni tomb bi waxtaane ko dinay tax ñi séq sëy bi bu ñu amee problème ñu xam problème bi fan la jóge te xam ngeen ne problème boo gis régler ko am am ak am ay solution la cey jëkk moy nga xam problème bi fu mu joggé di nga gis ñaar ñuy sey di am ay jafe-jafe sey te duñu am ñu xam li jafe-jafe bi ci kan la ci ñun ñaar te buñu xamul fu muy joggé duñu xam lu koy safara da ngay gis ñu bëgg sey bëgg juboo bëgg seen and neex te seen and du mëna neex parce que am na kenn ci ñom ñaar kuy def problème boo xam ne yëgu ko keneen kiit yëgu ko loolu nag waxtaane tomb mel dana ci dimbali nit waxtaane tomb melni nii te mooy problème muy dimbeli dinay dimbali nit bu baax ci saafara jafe-jafe yi ndax jafe-jafe yi boo xamee fi muy jóge xam li koy waral rek am nga solution bi dañu naan euh, demi solution nisful ilaaj moy nga xam li nga xam ne moy jangoro bi fu muy joge waxtane tomb melni dina tax ñu mucc sunuy couple sunuy and mucc ci lor yi nga xam ne ci lor yi nga xam ne jafe-jafey dina ko lor ñi sey jafe jafé sey mbokk julit ñi dafa bari ay lor yu ci nekk sooy waxtaanee jafe-jafe yi xam ko di ko trouver ay solution dina tax nga mucc ci lor yooyu nga xam ne bokk na ca ñaar ñu ànd ci sëy te toujours kenn ku ci nekk sa cofeel day wàññeeku ci morom mi loolu ay jafe-jafe sëy moo koy indi ay jafe-jafe sëy yu dëkk yu ñu réglewul mooy tax mujj gi ay découragement am kenn ku nek di ñak yeg yeg di ñak sentir sa morom legi nak lolu man na dem ba far euh, euh, dara dootu fa nek bok na ci lor yi nga xamne jafé jafé sey dina ko indi moy nakaril sen dund ñom ñaar kër gi neexatul ndax tongo ak pattaaral ak meroo day dem ba kenn ku nekk euh, sa nekk ci kër gi xol bu tàng lay doon bu waa góor ku góor ki euh, toujours mu ngi seet lu mu maanaam bunt bu mën a génnee kër gi ci biti kër gi lay noppaloo lu nekk mën na koo yenduloo àll lu nekk mën na koo fanaanloo àll day topp grand place su dëkk bi ba bu amatul fu fu mu grand place mu dem ci buntu boulangerie yi euh, di fa gonnal dañu ne dëkk boo dem góor ñi fay mujjee tëdd mooy góor ñi am seen problème seen sëy ñoo fay jëkk a tëdd ñoo fay jëkk a yeewu euh, lor yi nekk ci jafe-jafe sëy bokk na ci day dox diggante nit ki ak mu ci jàngam ci jàngaleem ci liggéeyam ba ci jaamu yàllaam jigéen bu am jafe-jafe sëy wala góor am jafe-jafe sëy dina leen di gàllankoor ci domaine yëpp euh, tax na ba dara gënul euh, euh, nekk gàllankoor ci jafe-jafe sëy ci nit jàng ak nit liggéey ak nit jàngale ak nit produire moo tax du lu du lu ndaw day naqaril dund day jafeel jaamu yàlla day jafeel sa concentration tax na ba jarul xeeb jafe-jafey sëy day tax ba waajur yi duñu tal sax yar seen njaboot duñu tala yar seen njaboot góor dinay jur doom bañ ko ngir lor yu mag yu ko yaayam lor Jigen dinay jur dom di ko di lor xolam di tang ci mom ngir lor yu bari yu ko bayu dom ji lor ci ci ci séem waxuma nak ni wax waxu waxu yar manam fo xamne ne ay problème fa nek nekatul fu nit meuna concentrer pour concentrer wo pour yar domam bok na ci li jafe jafé sey di indi euh, jëmbat ci doom yi ci boppam ay jikko yu bon am na ay nit ñoo xam ne dañuy màggaale rànkiñe boo xam ne problème yi daan dox diggante seeni way jur fa lañ ko jële xale dina ci tàmme fen dina ci tàmme tongoo dina ci tàmme xuloo dana ca tàmme saagante dana ca tàmme génn dem comme yaayam day jékki génn dem dana ci tàmme gedd ak yu baree baree bari yoo xam ne waxuma du ngeen tal seen yar seen njaboot mais da ngeen di wàll seen njaboot bi ngeen waroon a jëmbat ci ñoom jikko yu rafet dangeen di jëmbat ci ñoom jikko jikko yu ñaaw ngir jafe-jafe sëy yu bari yu nekk seen diggante dama bëgg rek ngeen xam ne thème bi ngeen tànn du tem bu ndaw ci jafe-jafe sëy buñu fajul lañuy démé ba wajur bu goor bi di bàyyi ji ak yaaji yeb sen der yàqu xam nga ku nekk day dem di jambat té la ngay jambatal sa morom du doon lu rafet nit ñi di xamé ci mom ay jikko yo xamné man na am li ngay wax deug la man na am li ngay wax du deug parce que ben magu wolof dafa am ben waju ñew di kalamé morom ma waxa waxa waxa waxa waxa wax ba wone ne mom mom dañ ko togn bi sëriñ bi bëggee àtte mag mi ne ko bul gaaw a àtte ndax wéet yow kese lay ñu yey la wéet yow kese lay ka ngay xulool nekku fa ka ngay layool nekku fa yow yaa wéet ak juge ba ka war a àtte mu ne nga lay ba pare ñu yey la mu ne loolu kenn gënu laa dof lu nit ñàkk ñàkk ñàkk xel ñaare bu wéetee bu layee rek ka mu wax de ko naan ah kon dey comme lii lañ la def yow lañ tooñ li ma bëgg a wax mooy jafe-jafey sëy day yàq góor yàq jigéen nit dina sëy am ay jafe-jafe sëy mu pare ci sëy boobu jëkkër jafe ko lool parce que day fekk jëkkëram fu nekk dem na wax na fa ay jikkoom ak la mu ko dajal ak la mu ko won mën naa am dëgg la mën naa am du dëgg ku jigéen kitam mën naa dund ay jafe-jafe ci néegu sëyam yoo xam ne ca la dégg nga day deru jëkkëram di jóge yàqu ndax su meree lu nekk dana ko ko waxal di nga gis ñaar ñu yàqante ci wàll woowu ba pare bëgg ne àndaat ñoom ci seen bopp dañuy rus parce que kenn ku nekk da ngay xam ne waxal nga sa morom tooxi doona yoo xam ne wax dëgg yàlla mer jaru ko woon kon jafe-jafe sëy day wàcce ay personnalité nit góor ak jigéen euh, day taxitam itam sëy bi dootul am secret ñu ngeen dëkkal yëpp dañuy daal di xam yéen li ngeen di dund jafe-jafe yi sëy day sonal waajur yi nga xam ne moom ñoo meye woon sëy ba ndax saa yu nekk ñu leen di woo layoo kenn ku nekk yaa ngi dem ci ci ci waajuru keneen ka di jàmbat ak di tawat ak di nettali ak di xarab moo tax dara gënul neex waajur yi gën dara gënul noppal waajur yi ci sëy ñu ñu séq sëy boo xam ne dafa stable kenn du la woo ci atte kenn du la woo ci layoo kenn du la woo ci teesante kenn du dem di kalaame kenn ci kenn te noonu waajur yi noppalikoo ci sëyu stable yi noonu la ci tribunaux yi di noppaloo boo demee ci sunu tribunaux yi fi mu ne nii casier ya dafa fees dell ak ay jafe-jafe yi sëy ak ay problème mu sëy yoo xam ne waajur yi tëli nañ ci régler ko jàkka ji euh, kenn jaarul ci ñoom pour régler ko lislaam bi kenn laaju ko pour ñu régler problème bi problème bi màgg a màgg ba mënatuñ ko gérer ñu dem nag euh, jox sunu bopp lu waa àdduna yi pour ñu àtteñ ñiy dund jafe-jafey sëy bokk na ci loria mooy da leen di soreel sëyu lislaam xam nga ni ñuy roye yonent bi ci ni ñuy gëme yàlla di roye noonu yonent bi ci ni ñuy jaamoo yàlla di roye noonu yonent bi ci ni ñuy jëflante jëflante yi nit ñiy séq li ci gën a rëy mooy jëflante ci wàllu sëy noonu lañu ñu war a roye yonent bi ci ni ñuy sëye jigéen ñi di roy ay soxna yonent bi ci ni ñu doon sëye fas yéene bu ñu toogoon ñaar wala ñetti weer cin takul ci kër gi du tax ñu génn nettali ji ko du tax ñu xeeb seen jëkkër du tax ñu xas seen jëkkër lool ngay jàng ci siira ñu ne la kër yonent bi nañ toog ñetti weer ñaari weer ak ñetti weer cin du fa takk te bi gi yonent bi génnee àdduna la ñu soog a xam loolu loolu bi sahaaba yi dund ak yonent bi xamuñu ko woon kon duñu seetaan loolu di am dañ caa yëgul woon dara bi yonent bi génnee àdduna la Aïcha nettali loolu naan fii nga ñu gis nii daanañ toog ñaar weer ak ñaari weer ak ñetti weer cin ndu tàkk kër yonent bi te kenn xamu ko woon loolu jigéen daa war a pare pour pour roy ko muñ googu ak sutura soosu te taxul ñu ñu sonal yonent bi ak wax wala taxaw taxul ñu ne ko génnal dem di lii wala def ne kenn ci ñoom demul sax même di ko wax ay mbokkam ak ay càmmiñam ak ay ay baayam pour ñu jàpp ji loolu jigéen ñi dañ ko war a roy góor ñi itam ci wàll woowu ñu war a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li mu wax ne xayrukum xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam mu ne nag lu waay baax baax baax ci soxnaam ci kanamam la may fekk ci jikko jooju Ken mënul baax ci soxnaam ba mel ni man sunna soosu fan la ci góor ñi toll góor ñi bu ñu daje woon kenn ku nekk naan man diw duma gën a baax ci ci njaboot maa ko gën a tabe maa ko gën a am yërmande maa ko gën am sutura maa ko gën a mën a muñ maa ko maa ko maa ko maa ko góor ñi bu ñu doon roy yonent bi ci wàllu sëy ci jikko yooyu la ñuy mënante waaye lu ñu mënantee ci maa ko gën a mën a saaga maa ko gën a am fulla maa ko gën a am dignité malheureusement euh, dañuy dañuy dañuy woot dañuy defe ne am fulla ak fayda mooy fu ñaaral ak sa jabar bu bu buy wax ak yow di lox di pat pati boo ñëwee ci kër gi kenn dootul am jàmm ndax say service yu bari te yow boo demee ci sa moroomu góor ñi nekk mu xat soo ñëwee ci biir góor gi kenn du am jàmm loolu mooy roy yonent bi ci wàllu si roy yonent bi ci wàllu sëy mooy def li Aïcha nettali ci moom ne kaanat fii mi kaana fii mihnati ahlihi bu duggoon ci këram lu jigéen lu soxnaam di def rek da koy jàppale lu soxnaam di def rek da koy jàppale ci loola jàppale ba bu laajee lallal mu lallal bu laajee fóot mu fóot bu laajee bale mu bale kaana fii mihnati ahlihi loolu la Aïcha wax radiyallahu anha mu ne te teewul nag bu yéreem xottee moo koy ñawal boppam bu dàllam daggee moo koy defaral boppam bu soxlaa meew mooy dem rattal boppam ca ca gétt ga ci biir kër gi bu soxlaa sangu wa yaxusu dalwahu mooy jël siwo ndoxam tanqal ko boppam yóbbul ko boppam ci wanag wi sangu damaa wax ne dund ay problème mu sëy lu ko ñaar ñi séq sëy bi gën a dudd rek gën a sori jàngale lislaam ci néegu sëy ñoom ñaar ñëpp ñu gën a sori roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu sëy lii ma tudd fii dama wax ne xam lii sabab problème mu sëy ak li koy régler dana tax nit mucc ci lor yi nekk ci problème mu sëy lii ma tudd ci ay lor yëpp nag lenn la lu tuuti ci lor yi juddoo ci problème si motax mu nek tem bu jara baye xel bu jara xam léegi nak pour tek baram ci lor yoyu pour tek baram ci jafé jafé yoy la bëgg wax tek baram ci li waral ay jafé jafé sëy dañuy séddale jafé jafé yoyu ñetti pàcc jafé jafé sëy yi nga xamné bi ci jëk moy jafé jafé yi nga xamné ci ñoom ñaar ñëpp lay jóge mën naa jóge ci ku góor gi mën naa jóge ci ku jigéen ki jafe-jafe yooyu ay troncs la mën naa nekk ci ku góor mën naa nekk ci ku jigéen loolu mooy jafe-jafe yi jëkk yi nga xam ne nañ ko tudd ñaareelu façon jafe-jafe yi mooy problème mu sëy yi nga xam ne ci ku góor ki lay jóge moom moo koy sooke moom moo koy sabab ñetteel bi mooy problème mu sëy yi nga xam ne ci ku jigéen kese lay jóge ñetti yooyu ñetti groupe yooyu lañu xaaj li nga xam ne mooy al mushkilaat az zawjiya ñuy ñaan yàlla nag subhaanahu wa mu may ñu euh, dal may ñu ndimbal lu ñuy mën a leerale yooya te ñu dégg ko suñ ko déggee itam ñu jariñoo ko jëfe ko euh, mu am jeexital bu baax ci sunuy néegu sëy ndax loolu rek moo waral jataay bi dajewuñ fii def bâche yi woo kilifa yi ci ci naaj bu tàng bi def ay effort pour déglu rek dem dañoo bëgg kiy wax ci boppam jàpp ne moom boppam lay waxal ndax ku fi nekkul ci néegu sëyit am nga yéene dugg ci moo am góor la moo am jigéen walla nga doon kilifa sëy goo xam ne lu ñuy def ci sëy ba war nga caa teew war nga cee xam dara kon thème bi ñépp a ko soxam ñu commencé kon ci problème mu sëy yi nga xam ne Eh, day day jóge ci ku goor di jóge ci ku jigen problème yoyu khatim nañ fi ci kayit gi fukki problème ak ñaar yo ni mu mën a ci ku goor ki non la mën ci ku jigen ki bi ci jëk moy cofeel bu manké ci bir and bi mo xam ñom ñaar dañoo bëggantewul aslan wala kenn ki bëgg na waaye keneen ki bëggul wala bu bëggee it cofeel bi des na loolu problème mu sëy la boo xam ne dinay jóge ci ku góor dinay jóge ci ku jigéen loolu nag li ko forcé nit ci sëy di waral bari na ku ñu koo xam ne dañ ko forcé ne ko kii ngay takk wala ku ji dinay waral ñàkk cofeel googu après nag continuer sëy bu lalu ci kaw ay intérêt yi dina koy waral ku góor koo xam ne la mu gis ci ndaw si rek mooy alal wala dara léegi takk na ko jotul ci alal ja na mu yaakaare woon ne noonu lay accès Eh, noonu lay amee accès ci alalu ndaw si amu ko ca léegi comme laluwal woon ci kaw cofeel ay problème day day commencé wala ku jigéen koo xam ne it alal la ko dugaloon ci sëy léegi waa ji xëy na xëy yoratul problème yi commencé kon daal nañu yëg ne ñàkk bëgg bokk na ci liy indi ay jafe-jafey sëy moo tax jar na di eh, xool lool ci ñaar ñi war a ànd ci néegu sëy mu dem ba nga xam ne lii sa engagement bopp la sa choix la bëgg nga loolu eh, nit dinay muñ lu baree bari dinay muñal ki mu bëgg lu baree baree bari loo xam ne bu bëggul woon xalaatul ko xalaatu koo muñ ñaare nit koo bëgg dootoo gis lu bari ci ay sikkam da ngay mëna a dénk lu bari ci ay loram motax bëgg am solo so bëggé li sey bi laaj ci ay ak manam nit ki boko boo ko bëggee rendre service da ngay contane boko bëggé bëggee rendre service diko defal sax da ngay contane bi soo ñaaree góor ki muy labat ni muy néega jël alalam yépp def ko ci moom bu kook bu ko kooka yërëm sax mu ne ko non lii du dara lii du dara parce que da koo bëgg moo tax dara gënul di yombal àndu sëy yi ci bëggante ñaareelu sëy bi ñaareelu jafe-jafe sëy buy jóge ci ku góor ak ci jigéen mooy euh, ñàkk yar jigéen yàlla nattoo ko mu dajeeg góor bu ñu yarul walla góor yàlla natt ko mu dajeeg soxna soo xam ne amul yar am li ñuy tudde reewande lolu bari na ay problème mu yo xamne ci lolu lay jóge teewande nak ay ay kàddu la ak geste ak dundin nit dinay e, yaqé kanamam no xamne ci kanamu jëkëram muy wax ak mom mu jëppes ndiku ko wala mu ciipatu ko wala mu sanni ko loxo deng ak yu ko niru goor nit naka nonu saga saaga bokkul ci jikkoy ku ñu yar am na góor ñoo xam ne ay saagakat lañ xaste yooyu yëpp ay jikko loo xam ne dinay nekk ci ku góor dinay nekk ci ku jigéen moo tax nit na wóor kiy jur nit ne ko defaloo ko ci àdduna fii lu gën a rëy nga yar ko joxo ko cadeau ci aduna bu gëna a nga yar ko lu nit ñak su amé yar mën na amat amaat waaye lu nit mëna am su ñaké yar mën na xey ñak ko diiné sax su ànd ak yar du jariñ borom té kenn du jariño ci mom nit ñi xam nga ku ñu xamul nuñ lay def moy nga yaru sen sen wet yar gaal la goo xam ne foo ko teg mu dem bu nit xesee yaru mën naa dëkk ak jaan ci paxam mu nit mel mën na ko gérer waaye ñàkk yar bu amee ci néegu sëy ci ñaar ñëpp walla ci kenn ki seen ànd day jafe su amee ci ñaar ñi ñaar ñu réew du ñu ànd bu amee ci kenn nag te kenn ki nag muñ kat mën nañoo sooxandi di di dox du dox bañ jombul kele mag ba talatul rewande wala jabot, ba talatul rewande mu mu bàyyi ndax nit dinay wex ba yag mu wex ndax aduna moko yar kon ñaarelu sabab ba nyete ñettelu sabab bi moy tam tongo jikko la buy nek ci guru di nek ci ku goru goru tongo kat du kat soxna tongo kat itam du kat motax lu jara baye xel la tongo day day day day day gëna yok mer xamoo nit bu bu meree bu waxee rek day day mel ni dafa per wax mer bi defay dem tongo kat nga xamne man nga dekk ak nit wer du la déranger du ngeen nuyo du ngeen wax ñaar ñu bokk néeg di bokk benn lal war a xëy joxalante ay wax kii jox kii dépense kii dem marché di soxlante ñooñu bu ñu tongoo nan la ñuy dëkke da ngay gis jigéen ak góor tongoo ba dinañu sëq sax rapport ci kawlal te kenn du wax ak morom loolu lu mu doon julit du doon kat gisoo yenen bi ne sallallahu alayhi wa sallam daganul ci julit muy tongu mbokk julitam lu ëpp ñetti fan tongoo bokkul ci jikkoy jullit moo tax noonu lay yàqi sëy ndax problème bi day màgg rek te duñ ko wax mu continuer ñeenteelu mbir mi indi problème ci sëy te mën a jóge ci ku góor ke ku jigéen ki mooy ay relation yu leerul góor fu mu toll mu ngi naan soxna si may ma daa am ku may waxal wala dañuy waxtaan bay ak téléphone soni mu jóg làqatu ne wax ngunum nganam nganam delsi jigéen nit nonu amna dal ay ay coup de fil yoy jot yo xam yow bëggo kenn dégg xétu relation yu lérul yoyu danay indi ñaaw ndorto ci ñaar ñi siq néegu sey ba mu indi ay problème yu bare bare bare motax goor góor boo am soxna li ngay dund nay jigéen boo xasee am borom kër say relation na leer fi ngay dem sa sa boroom kër xam ko bu la góor woowee te sa boroom kër xamul kan la na nga fexe ba mu dégg baatam xam li ngeen di wax mu xam kan la wala boo coupé rek ne ko diw de moo ma doon woote di ma di ma nemmeeku moom day na siq business wala day na siq ak mbokkoo wala yu ko niru na leer loolu day dàq tuuma te jullit dafa war a doon dàq dàqkatu tuuma ndax ñu say jul say mbokk julit di am bakkar ci ñaaw ndortu yi ñuy def ci yow motax bo leralé sa dund nak do du kenn do am bakkar ngir yow ndax ni du ñaaw ci yow ndort waaye dafa am ño xam ñom ci lëndëm rek la dox fu ñu tollu ñu ngi def luy nit ñi di ñaaw ci ñom ndort su boba nak nit ñi dinañ am bakkar waye yoy itam di nga am bakkar bok na ci lii indi jafe-jafey sëy te mën a jóge ci ñaar ñëpp mooy gan gu yokk ci kër gi góor amoon benn soxna takk keneen sëy boobu jafe-jafe yi ciy am mën naa jóge ci ku góor gi parce que mën naa takk keneen soppi doxin waaye mën naa jóge ci ku jigéen ki tam parce que mënoon naa ne nerr nekk ku baax nekk ku dal ñu takkal ko wujj rekk nag mu pétard te affaire soxna ci góor ak jigéen takkal ko wujj ci ñoom seen mond lu yéeme ci nekk ndax góor naturellement dañ koo mooñaale bëgg ay soxna loolu dañ koo mooñaale góor ñi jigéen ñi dañ leen a mooñaale bañ wujj moo tax loolu bu naree am ci ànd dal ak teey ak indiwaat ragal yàlla ak diine ak jëfandikoo xel dafa war a teew su amul rekk ay jafe-jafe mën naa am góor naturelement polygame la zuyina linnaasi xubbu shahawaati mina nisaa i yàlla jëkk a wax di bi yàlla ne moo ñaale naa nit ñi ñu bëgg ay bànneexi àdduna ak ay xéewal ak ay poyteefu àdduna loolu dama ko moo ñaale nit ñi la mu jëkkalim mooy ci ay soxna yu bari yoo am ñuy bagante di dem ak ñëw rek bu kii rombee nuyoo kii romb nuyoo bu kee indee ndox kee indi ndox bu kii toggee tey suba kee togg bu kee solo romb la kee solo romb la yàlla nee na maa moo ñaale góor ñi loolu mënoo ci dara ku ko ci xalaatul rekk daa nekk ci ay jafe-jafe wala mën a gu na jigéen ñi xam loolu tam góor ñi it nañ xam ne jigéen ñi yàlla da leen a moo ñaale nag bëgg nekk ak sa soxna yow sa boroom kër yow kese waaw ngiru dund su ma waxee nag yàlla da leen a moo ñaale ne nekkul ne amul ay exception mën naa am ay exception yu ndaw ci góor ñi yoo xam ne ñoom ñoom mënoon nañoo bañ a am jabar sax xam nga kooku bu amee benn wax kooku waxatuñ ay waxam am na it ay benn benn jigéen ñoo xam ne ñoom dañoo màgge ci kër goo xam ne polygame la te seeni yaay juboo woon seeni doom baay juboo ànd bi neex ba yow boo takkee ci ñooñu booy wax waxi uti wujj walla nga ki ñoom loolu ci lañ judd ci lañ yaru ci lañ màgg li ma bëgg a wax mooy a gan gu gane si ci kër gi góor ñi war nañ ciy def ndànk jigéen ñi itam war nañ ciy def ndànk bari na ay jafe-jafe sëy yoo xam ne ci loola lay jóge ci loolu lay commencé dund dund bi nag commencé naqari fiir bu ëpp ak ñaaw njortu bu ëpp ci ñaar ñuy dencante dina indi jafe-jafe sëy saggan ci sa wàllu cet ak ci sa wàllu solo ak ci sa wàllu gëttu dinay indi jafe-jafe sëy mën naa nekk ci ku góor ki mën naa nekk ci ku jigéen ki dafa am góor ñoo xam ne seen nañ koo nelewaale xoolal ñoom amuñu culture gis yére bu rafet ñu jënd amuñu culture ñaw ñaw bu rafet luñ sol baax na amuñu culture parfum wu soccu tam dañ cee sàggan dégg nga day ah, mu ngi noonu duñ peñewu te xam ngeen ne yonent bi daawul tàggoog peñeem ak soccoom daawul tàggoog ay gëttam ak ay parfom li yonent bi gënoon a bañ mooy nit santiir ci moom xet gu neexul moo tax keroog bañ ba mu naanee lem ci kenn ci néegi soxnaam dem ci keneen ke mu ne ko sa gémmiñ gi daa am xet yonent bi daa mer ba dafa ne kooku dootuma jox benn lem ba ma naan ko ngir ni ko kële ne sa gémmiñ gi xet da cee nekk bu neexul yàlla may la ab xale muy yaaram ñu yar ko ci cet yar ko ci organiser muy jigéen yow sa yoon nekkul ci yooyu loolu mën naa dem a dem a dem ba sa sa soxna góor bu mu gis mu sopp lool rek da koy bëgg dangay tax ay yeneen góor di ñëw ci xelam mu yéene ak ka neexoon mu séeg ñooñu ak aneexoon neexoon muy soxnay ñooñu te booba ci yool cër yi ñu yàlla jox ak xéewal yi yàlla indi ci àdduna dafa bëgg ñu xéewloo ko cër yi tam ñu teral leen dagg say we ba mu rafet socc say bëñ ba mu weex dégg nga day peñe sa kawaru bopp wala ngay sol mbaxana bopp Bawa manul saki nggak nggak isol. liwaji waxoon ci biir këram sayu yu saa yu peñe ñu ko sayu yu jëndee peñe xale jël ko sayu yu jëndee peñe mu damm mu ne soxna si léegi da ngeen may wutal ay am peñe eh, mu ngi noonu ku góor kaangoog ku tilim ñeme tilim ak ñeme salte ak sàggan ci sa bopp li ci jig góor jigu bu sàgganee ci boppam du neex a dëkkal bari lu xelu góor di teel a nekk ci takk keneen bari na lu xelu góor di bari lu muy dem ci yeneen jigéen parce soxnaam setul saa foo ko gis day mel ni ku jóge ci waañ wi euh, du du du setal néegam du setal jëmmam du setal gémmiñam du xeeñal amul ànd du cuuraay bu demee ba de ba ne day cuuraay cuuraay day dem jënd ci bant yu juróom yi ñëw taal ko ron lalam lu nekk nga ca poussière baag dàll yaag dégg nga day lu nekk nga ci kuusu xale yi sax léeg-léeg nga yëkkati eh, ronlal bi gis ko fa loolu sikk la ci jigéen boo xam ne mën naa indi ay jafe-jafe sëy yu baree baree bari bari bokk na ci li indi problème mu sëy te mën a jóge ci ku góor ak ku jigéen mooy dugg ci neegu sey te talo neegu sey ba ku góor ki amul ben temps bu muy jox njabotam mo xam ay businessam la mo xam ay liggéeyam la mo xam lu mu meuna don gis nga li ngay yëngu ba talo sa soxna su la don jox aduna ak li ci biir itam mu ngi yàq sa neegu sey parce que day bëgg leg leg nga toog ak mom waxtaan ak mom jël ak mom temps naka nonu njabot xalé yi ñak jot joxal sa njaboot waxtu ci sa temps boobu bu ngeen dul toog di waxtaan kañ la miinantey am kañ la xamantey am kañ la weccantey xalaat di am loolu nga gis ni muy nekk sikk ci góor noonu lay nekk sikk ci jigéen am na jigéen ñoo xam ne boo leen bëggee làqatu dangay dem seen kër toog fa ngénte céet natt xew tuur lijjantiwul dara ci këram xamul dara ci njàngu xale yi xamul dara ci borom këram wàcc na wala wàccul lekk na walla lekkul wér na wala wérul loolu xam ci dara loolu sikk bu rëy la ci eh, jigéen comme ni muy nekk sikk itam ci góor Sona aisha nena, radiyallahu anha dana am boru dana daanañ am boru koor duñ ko mën a fay ludul ci weeru shaabaan ñu ne ko lu tax mu ne dañ doon nekk ci taxawu yonent bi diiru ane bi yëpp duñu am temps pour fay sunuy koor ludul ci weeru bi nga xam ne bu jotee yonent bi da daan woor lu bari ci weer woowu nee na ci lañuy profito ñun itam woor tellement bëgguñu di fay seen boru koor yonent bi soxla leen wala ñu mu affaiblir affaiblir leen ci taxawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñoom sakkanoon nañ ci biir kër ga kenn ku nekk mënoon naa ne su ma wooree itam di woorul su ma wooree di woorul waaye nee nañ bëgg a taxawu yonent bi daana tax du ñu amee boru koor duñ ko mën a fay lu dul ci weeru Shaaban ngir bu yonent bi wooree ñu profité ñun itam woor bokk na ci problème mu sëy liy indi problème mu sëy tey jóge ci ku góor ak ku jigéen mooy li ma junju léegi rek bari lu ku góor di toog di tagg ay yeneen jeeg ay yeneen soxna di leen tagg ci kanamu soxnaam lool li ci misaal sëkk mooy bi yonent bi baree li muy tagg Xadija ci kanamu Aysa ba Aysa mer yonent bi ci kóllëreem ak rafetuk àndam da daan toog ba yàgg rek mu ne cëy Xadija waay ay sama soxna sa waay dafa bari circonstance yu mu doon fàttalikoo Xadija bés Aysa ne ko waaw yow looy looy looy ñuy bëgg rek Xadija ab màgget bu la bu la yàlla joxoon ba yàgg mu jël ko joxaat la ay ndaw xale yu ndaw yu toll ni ñun foo toog naan ñoon Xadija Xadija man lima bëgg jublu ci dalil ci lool rek moy bari lu nit di tok di tag yenen jigen ci kanamu soxnam di len naw di len euh, dégg dey naka nonu jigen comme nima ko jinjé légui bu tok di naw ay ay yenen euh, goor ci kanamu borom kërëm bay wax sen ciofé dañoo rafet dañoo nangam nangam ben jigen Euh, mu doon na déglu benn conférencier euh, naar ak sikki moom bu rafet ak taar bi euh, boroom këram toog ci wetam bu toogee tuuti rek mu ne ko xoolal xoolal xool ko kii laa la doon wax ki mu jékki nekk waaye xam waay yàgg kii xam yàgg moom moom xoolatul sax njariñu kii bi nu mu tuddati waxtaan wi kooku di waxtaan waaye dérangé na rek ci ci ci ni ko ko soxna si di ko won di ko ko wonaat mu ngi mu ngi xool ko nangam nangam nangam euh, dinay sababit problème mu sëy yuy jóge ci ñaari boor yëpp mooy ñàkk culture ci néegu sëy góor bu xëy dugg ci sëy te xamul ci sëy dara xamul nu ñuy kontaanloowe jigéen xamul bu jigéen mere noo koy naxe xamul nu ñuy gérer mer tàmmul joxe dépense dégg nga day euh, kooku day dugg ci néegu sëy te du changer benn jikko ci jikko yi mu amee woon bi muy nekk célibataire day continuer di gonnali fa mu daan gonnale di guddee tëdd di doxi di nangam nangam nangam di continuer di wax ak yeneen corom yi mu amoon ak yu ko niru bu amee ay jafe-jafe du xam lu muy lu muy kii te xam ngeen ne dañ daan yar góor ci ni ñu yore soxna daan yar jigéen ci ni ñuy dugge ci néegu sëy jigéen it boo xam ne mënul togg mënul fóot mënul bale mënul neexal góor bu góor meree amul ay kelem yu mu koy wàcceewe te am na jigéen ñoo xam ne ci wàll woowu niñ ci mel ëpp na kenn mënul mer seen wet boo ko jéemee it yaay bàyyi rek bu bu parfum romb la nga mer bi jeex bu solo romb la mer bi jeex bu toggee taaj jox la mer bi jeex loo mer mer mer soo génnee ñëw fekk mu defar néegam ba lal lalam ba teg ay njegenaayam placé ay pot fleur boo duggee rek rek noonu la jigéen di mel am na góor ñoo xam ne noonu lañ joŋee ñu ngi ak seeni léeb ak seeni kàddu yu neex yoo xam ne ñoom ñu ko sax ba kàppar ñi la feccal la bu ngeen wéetee yéen ñaar pour mer bi jeex jàmm ci néegu kat lu araamul lu ne nit mën na koo def ndax jàmm am ci te defe naa oustaz Chérif yi waxuñu dara ci wéet feccal sa borom sa soxna <laughs> dinañ ko laaj docteur Modou Sall lu yàlla wax ci loolu ak yonentam yal na ko yàlla saafara ah loolu war naa leer incha allah dina leer euh, bi ñuy mujjee ci problème yi am ci sëy te mën a jóge ci ku góor ak ku jigéen mooy mooy influence am na ñaar ñaar ñu ñu dugg ci néegu sëy yoo xam ne bu ñu leen bàyyi woon sëy bu neex la ñuy sëy waaye day am ay influence ci ci entourage bi influence yooyu léeg-léeg mu nekk waay yi léegi léeg mu nekk xarit yi moo tax euh, ñaar ñi séq sëy war nañoo doon ñu ñor ñoo xam ne dañuy xam li leen tax a jóg xam ne ñoom mbir mi ñoom la waaw jigéen dinay àgg ci sëy foo xam ne yenn yi sax du ko yeggee ay waajuram ndax waa jur daa bëgg doom soxna yi tooge ne mën nañoo puus ndax naaj bi day da leen di jot de naaj bi da leen di jot Euh, ñaar ñiy sëy dañ leen di dimbali bu nit ñëwee nettali la mer nga dalal ko waaye bu doon man la nan ngay mën a nangoo loolu euh, loolu def ku maanaam defarkat du waxe noonu nit yàlla nee na wa xuliqal insaanu daifa nit dafa dafa faible Bo bo waxee rek man benn kaddu booy wax mën naa yàq sëy sëyu ñaar ñu àndoon ci jàmm ak salaam moo tax ñiy wax ci sëy nañu nañu nekk ñu ñu ragal yàlla nañu nekk ñu xereñ ñu am xel kaddu gi ngay wax nga xam li mu mën a jur ak li mu mën a yàq daa am jigéen ñu mën a xiirtal jigéen seen moromu jigéen ci borom këram pour mu révolté am góor ñoo xam ne tam dañoo mën a gayndeloo góor maanaam xiirtal ko ci njabootam maay fàttaliku oustaz Chérif benn paa bu laa biir boo xam ne bu bu sunu papa meron ci njabotam ba diko netali ni nii da ko da ko naan Ousmane Ndiaye muñal njaboot gi yep ben la li ngay joy fi mo am fépp xam nga nit bu boko waxe waxee yang koy wacce waye bu mere nga di gëna gën xalé yi dañoo nangam dañoo bon dañoo ni man su doon man ni ni ni ni man nga tax nit ki tas këram ba pare yow yaangi gérer sa kër lu gëna metti te Hmm? la ñuy nettali ci benn waay bu doon ja nettali ay jafe-jafe ci soxnaam euh, mufti ba ne ko fase ko walla nangam nangam yenn yi jigéen duma ko def nangam nangam soxna si dégg lool ne ko bu guddee ña nga ñëw xool heure sàngam na nga ñëw rekk xool per yi nga déglu ma maag moom ndekete moom bu guddee waxuma la dara waaye ndaw si da koy naan dama bëgg dama laa bëgg ali fas dama bëgg toog sa kaw nga njaab comme fas euh, ak yooyu noonu te moom loolu da koy def euh, li ma bëgg a wax mooy bari na ku lay xiirtal ci sa kaw njaboot te moom melul noonu ak njabootam loolu yëpp itam bokk na ci li ciy dimbali nit pour mu ñàkk ñu koy influence ak ñu koy yàqal si séyam mooy mu am secret si am yoo am da koy gérer boppam waaye boo exposé sa sëy teg ko ci mbedd mi ku romb wax ci njaayu mbedd lay doon rek ku romb waxaale bari na lu ñuy def nit mu mer te fekk moom moo ko sabab looloo tax sutura baax ci néegu sëy ñoo ngi teg foofu baaraam ci problème yi am ci sëy te mën a jóge ci ku góor mën a jóge ci ku jigéen maanaam ñu ngi ciy taxaw foofu ñu dawal ci ñaareelu xaaju problème yi te mooy problème yi jóge ci góor problème mu sëy yi nga xam ne day indi ay jafe-jafe sëy ci ku góor te ci ci góor mi lay jóge góor ñi li passé tronc commun la woon déglu nañ ko lañ ca moom lañ ca am nañ ko garder boole ci yi ñuy bëgg a wax dafa am benn conférence bu ma doon waajal kako amene ma il faut nga wax ci neegu war waru garu jigen ci neegu sey parce que si jigéen ñi seyetuñu na ko gor ñi tam seyetuñu di suma ma dina wax ci jafe-jafe waru garu jigen ci neegu sey dina wax itam ci waru garu gor ci neegu sey affaire bi ñu ñu équilibrer doxé ñaari tank waye bu ñu ñun gor ñi xassa xass jigen ñi sikkel leen bonal leen té ñun duñ wax suñ bop jafe-jafe yi sëy yi jàpp leen yi ci ëpp ci ñun ñii la jigéen dinay dëng ba mel ni xala jubadi amug reewande ak ñàkk yar ñàkk xam diine ñàkk joxe cër tegu ci loxo góor bu am xel bu mën a muñ bu teey mu koy noddanti di ko noddanti di ko noddanti ba mu jub xocc loolu dinay am li ma bëgg a wax mooy bu góor melee ni mu war a mel dund li mu war dund ci néegu sëy bari na ay problème yoo xam ne mën na faa feeñ mais da koy régler soxnaam mën naa sikk mais day day mujj am kersaam am cofeelam ndax mën a muñam ak mën a maslaam ak nangoo joxeem loxo ci poos loxo ci poos góor du ko ñeme mukk am ko di ko def te li ngay bëgg ci sa soxna do ko am lu mu rew rew dina yaru yarulu lu mu tang tang tang dana sedd lu <laughs> wa lu mu reey reey dana wajj ndax euh, pos, hmm? moo tax euh, li ash-shafi'i wax mune wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u tasattar bi saxaa yi fa kullu aybin yu yu sattiruha kama qiila saxaaw nee na boo nekkee ku sikk ku mel kenn mënta dékku ci nit ñi nee na na nga tabe rek nee na soo tabee continuer nee na loo sikk-sikk say sikk dana mujj nit ñi toloore ko nit ñi muur ko waaye li ma bëgg a wax mooy góor itam bari na ay jafe-jafe si yoo xam ne ci moom moomu lay jóge am yoo xam ne sax ci ku jigéen ki lay jóge waaye bu dajee woon ak góor bu xereñ dana ko gérer saytu ko ba mu jeex kon góor ñi nañuy déglu seen wàll bu baax a baax ci néegu sëy ñoom ñooy patron yi ñooy chef yi ñooy tegle bu jëkk bi ñooy dàtt bi ñooy reen yi bu ñu normaalee rek néew na lu lu ay problème di am bu amee it dinañ ko mën a saytu jigéen ñi dañuy wéet naan góor ñi ay xale yu ndaw lañ dañ leen di nax mais góor noonu la jigéen ñi nekk ay liir yu ndaw ay bébé yu ndaw ci seeni loxo bu ñu amee xereñte bi am muñ bi am naxante bi am euh, xel mi ñu ñëw kon ci jafe-jafe sëy yi nga xam ne ci sox ci ku góor lay jóge kese bi ci jëkk mooy nay am na góor ñoo xam ne mbokk jullit ñi li yàlla wax ci sóoratu ba ci naafiq yi ne wala yunfiquuna illa wahum kaarihun fu ñuy joxee day ànd ak mer xam nga joxe boo xam ne nag farata la ci yow du la wàcc yow la ko yàlla sas ah jarul mer xam nga lu ñu yàlla dàmpe xam nga lu ñu yàlla joxe ndàmpaay ci li ñuy joxe dépense ndàmpaay li mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dërëm yi nit di génnee di ko jaamoo yàlla benn gënu cee rëy pay dépense bu mu def ci njabootam loolu boo koy génnee xamal ne yàlla nga koy génneel yoonu àjjana nga ciy wut tuyaaba la kon jarul mer jarul xultu li am solo mooy defal li yàlla wax rek wa iza laa laa tajal yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast bul joxe lu ëpp bul pasar pasare waaye joxel lu doy lu njaboot gi di kontaane xale yi lekk ñaanal la ndaw si bu demee marché ay calcul du ko rey day xam ne li mu yor incha allah doy na mu jënd la mu mën a jënd ñëw waaye dañuy teg léeg-léeg jigéen ñi natt yoo xam ne bu ñu xëyee war a dem marché dañuy xalaat ba seen bopp yi bëgg a toj parce que du ñu xam lu ñuy jënd ak lu ñu war a lu ñuy bàyyi wolof yi dañ naan ragal du tee du tee tukkalu gilleem fanaan biti gilleem mënula ragal ragal ba ñu wutal ko néeg di ko ci dugal lu mu ragal ragal biti lay fanaan góor it loo nay nay nay di nga joxe dépense danga koy joxe kay sa xol di bax nga koy joxe sa xol di lakk nga koy mais par force nga joxe ko wàccoog ñoom wala nga am ak yàlla problème ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bàkkaar gënu la rëy nga sàggane ñi nga war a dundal ba dundaloo leen taxawoo leen nee na bàkkaar gënu koo rëy yaay tànn sa bu la neex na joxe ci dal joxe ci teey joxe ci tabe am tiyaaba walla joxe ci mer joxe ngott joxe xas saa yoo <laughs> saa yoo jox ndaw si depanse danga koy xasaale sonal nga ma lakkal nga ma dangeen di yàq rek bu dul woon yow nangam nangam am na ci paa bu doon wax soxnaam sa loxo su ndaw si bu dul woon moom ma aji màkk waaye saa yoo xëyee rek tàllal ma ko nay ak ngot ci joxe problème mu sëy la buy jóge ci góor ñàkk reconnaissance ñàkk gis li ndaw si sonn ci biir néegu sëy bi doo mosa ne jërëjëf kenn du sañse ba nga lalal ko kenn du togg ba nga neen neex na kenn du xeeñal ba nga apprécier kenn du sonn ci njaboot gi ba nga ne ko jërëjëf këm këmm rek ni ab ëkk jigéen su defee benn bu baax tey nga tagg ko su subaa dina def fukk soo ko suba dina def téeméer yàlla daa mooñaale nit ci bëgg ku ko tagg loolu yalla da cee mooñaale nit moo yalla yàlla mi ñu moom lii ñuy def nii ci ay jaamu yàlla soxlawu ci dara waaye dafa feesal alquran ak tagg nit ñu baax ñi parce que xam ni nit ay tagg da koy encourager ay tagg da koy bëggal ay tagg de koo neex yàlla feesal téeréem bi ak tagg ñu te ñun lan lañu defal yàlla lu mu gis lan lañ defal yàlla lu koy jariñ lan lañ defal yàlla lu tolloog ay xéewalam ba mu di ñu tagg def ñuy jàngal ñu doon ñuy santaate bu nit defee ay effort ñu gërëm ko sant ko yëg ko mais dafa am ñoo xam ne waxuñu la gërëm ko mais dañ ko dul yëg sax bokk na ci sikk sëy yi jóge ci góor mooy bari ay doxi guddi bari ay doxi guddi soo yendoo ci àll bi ci bëccëg gi bu guddee nanga toog sa kër li nay naqari soxna lu baree bari ay réunion guddi ay gonn lu guddi ay ndaje guddi yu dul jeex góor ñooñu doon am grand place su gannaaw gee ba yàlla def ñoom ñëpp ñu am soxna bu ñu bëggee dund sunna bëgg a dund diine grand place yooyu dañ koo war a tas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yi nee nañ tere na nelaw avant julli gee waaye tere na nag toog di wax après julli gee nga toog di gonnal tere na ko bokk na ci sikku sëy yi jóge ci góor mooy làqatu boo xam ne dafa ëpp sa jabar xamalu la dara loolu it luy naqari jigéen la ci néegu sëy xamalul borom këram dara du waxtaan ak moom ci dara luy xew day jékki rek gis ko bu dee ay gan yu ñëw la day jékki gis leen bu dee lu muy jënd la oto walla dara day jékki gis ko buy dem du xam fu muy dem ay dundam yépp kot la ci ci ci soxnaam foofu soxna si day gis ne yow boole woo ko ci sa dund loolu dinay naqari jigéen ñàkk yërmande ci jigéen sikk bu rëy la ci góor sa soxna saa yu demee ba yëg ne yow yërëmoo ko day wàññeeku ci yow bu baax te jigéen ñi yàlla de leen a binde noo xam ne dañoo aajowoo ku leen yërëm bàyyi gëdd sa soxna ak di ko yuuxu ak di ko xas ak di ko saaga sikk la ci góor ñi jéng su la yàlla joxe ay soxna yu bari nga jeng loolu na góor ñi xam ne gis nga takk ay soxna yu bari niñ ko bëggee lislaam it may ñu ko mu dagan ci ñun noonu la amee ay riskam ci wàllu diine ndax gàttañ lu jigéen ak ñàkk taxawe ay àqam yu bari du tax nga jël moromu jigéenam l'islam may la nga jël meneen moromu jigéenam teg ko ci kawam di ko defal dul defal kële jongeeb jigéen lolit ak nga nob ko lool ak mu baax lool mën naa tax nga gën koo bëgg waaye du tax nga jeng jëm ci moom ci say joxe ak ci say waxtaan ak ci say def maanaam comportement moo tax ma ne ay soxna ci góor lu yàlla daganal la mais nattu la ci moom parce que dafa waral dafa bari luy waral jeng yuy nekk ci soxna yi ci kee maanaam gàttañ lu lool ci séyam kee baax lool nga gis yenn góor ñi naan moo baax ci man ma baax ci moom loolu du tax du la may nga nga nga jeng jeng bi lislaam tere na nga tax may wax bokk na ci sikku sëy yi jóge ci góor nga jéng itam ci njaboot bi te ñaari góor bu jéngee ci kenn ci ay soxnaam rekk day privilégié aussi njabootu kooka jàng jëm ci ñoom itam kon yooyu ma tudd nii mooy sikku yi indi problème mu sëy tey jóge ci góor ñi liy indi problème mu sëy tey jóge ci ci jigéen ñi jigéen ñi dama leen di xaw di rus ba su ma tolloo ci wax ci seeni sikk duma sawar lool wax ci sikku góor ñi euh, en tant que góor ci laa gën sawar dama leen di ñeme lool jigéen ñi nag xam nga jigéen léppam sutura la waaw dañoo ragal lool ay ay critique waaye yi jataay yii du mën a ñàkk jataay leeral la te itam ay mbir yu jóge ci yàllaa ko taam rek la bu mu tax kenn ñi kenn ñibbi yokk sa xoromu añ ba duñ ko añ wala nga ne tey daal dañ ñoo dajale woon di ñu xas looloo taxoon ñu def conférence bi xam ngeen ne bi ma xëyee ba tey ci góor ñi laa nekk kon ñetti minute juróomi minute yi may def ci yenn itam da koy gérer te déglu nag déglu bu baax ndax àdduna ki fi gën mooy kiy corriger boppam kiy gën a yokk mbaax ki naan naa déglu ki nga xam ne day bëgg sikkam yi ñu di ko ko wax pour mu gën a defaru ci bunt boobu rek la léegi problème yi am ci néegu sëy tey jóge ci ku jigéen ñi tënk naa ci juróom-ñetti mbir bi ci jëkk mooy jigéen boo xam ne joxul jëkkëram cër maanaam diggalul jëkkëram jëkkëram mënu koo tere mu bàyyi mënu koo digal mu def moom daal lu mu defal jëkkëram day fekk neex na ko bu jëkkëram santiroon tey ne ceeb laa bëgg te moom maafe la bëgg moom maafe la ñuy togg dem te neexul jëkkëram day dem moom am na jigéen ñoo xam du ñu tàggoo sax day jékki rek dégg leen ñu maa ngi maa ngi sama kër diw maa ngi maa ngi dem jigéen ñi damaa bëgg ñu xam ne boo xañee góor baat ak kàddu ci këram xañ nga ko lépp xañ nga ko lépp jigen ñi nañu xamne bi yonent bi lim li dugal aljana jigen defa len julli lim kor, lim aj lim azaka mu wa ataat zawjaha li yeb bu ko defé digganteem ak yalla fekk nak muy top ndigalu jëkkëram ci lay soga a duggi mu melni ni li hadith bi wax moy jigen bu doon def yoyu yeb ak yalla jullina na azakana ajna pun te du top ndigalu jeukeram lola du ko jariñ dara looloo tax yonenti wax ci benen hadith ne lan tu addiyal mar'atu xaqa rabbiha hatta tu addiya xaqa zawjiha jigen du defal yalla dara ba yalla gis ko lu dul mu taxawé ay borom te àq yoyu bi ci gëna reuy moy top ndigalam góor bu yëgee ne déggal nga ko rek xaritam nga jigéen day bàkkoo ne man sama borom kër mosumaa digal lu ma deful mosumaa tere lu ma bàyyiwul jigéen ju baax day bàkkoo ne mosumaa mooy sama ndigalu borom kër jigéen ju baax day toog naan ay doomam gannaaw ba ñu màggee lii bettuma woon ci yéen parce que mosumaa mooy seen baay fële ñu dëkk benn mag dafa ma nettali benn accident bu fa amoon muy teen bu bari ndox ñu jékki rek yuuxoo yu jib ñu ne diw moo tàbbi ci teen bi diw ne menteng ci biir teen bi kenn gisatu ko paa bi nee na mu boobu buum bariwul dañu naan kër baay diw am na benn daggitu buum ñu wut ay xañ wut ay mbir fasante ko mu jël temps lool pour ñu yoor kenn pour mu jëli ko mu jël temps bi ñuy daar dari ba am buum ñu yor kenn mu tëmb ci biir teen bi ba nuur làmb kooku ba daj ko génnee ko li jaaxal nit ñi mooy ba ñuy yuuxoo naan diw daanu na ci teen bi yaayam def ko fekk muy mooñ waxul jógul fi mu toog la toog di mooñ continuer liggéey yaa diw xanaa déggoo ñu ne diwa ci teen bi mu ne waa baax na biñ ko génnee dara jotu ko dañ koo laaj mu ne leen man sama doom du dee ci accident parce que mosuma tàngal xolu seen baay te ñun jàngal nañ ci sunu aada ne jigéen ju mosul mosul tàngal xolu jëkkëram deewam du dee dee bu ko bett xamoon naa ne lu mu yàgg-yàgg sama doom dina ñëwaat te dara du ko jot am na gàllaaj yu rëy ay muslaay yu rëy ay ubbeeku yu rëy ay bay bayre yu rëy ay wërsëg yu rëy yoo xam ne doom du ko wutal boppam yaay ma koy wutal euh, doom ca ba na mu séyee ak baayam lu bari sunu njabot manatu ne mel lu bari sunu njabot manatu ko am ngir seen yaay dañu ne ben kilifa gu mag fi dafa joge fi dem mag muy Cheikh Omar foutiou mu aji mu dem euh, di tok ci khalaqat yi fi ñuy jangalé di deglu leg leg mu ak serigne ba masala ba mu mujj ñu naw lol xam-xamam mujj ñu la ko yow xanaa sa papa fa mu nekk moo faraw xanaa fóoree la nangam la mu ne leen sama papa fa mu nekk ña fa mel ni moom du ñu jeex ci xam-xam sama yaay laa xamul jigéen ju mel ni moom ci déggal sama papa ak nangoo sëy ak mbaax kon su dee am na lu ma ràññeekoo xanaa ci sama yaay la gis nga muñ yi ngay muñ ci sa néegu sëy nangu yi ngay nangu dégg kat ndigal yi ngay dégg ndigal non seulement tuyaaba yu rëy la mais ay barke lay doon ci sa njaboot nit baayam ak yaayam a ko jur mais mais bari na lu nit di kii ñu ne liggéeyu ndeyam la ani baayam nit ñi dañoo wolof yi dañ naan nit ñi ci seeni ndey lañuy rawantee lii yëpp boo gisee ma koy wax mooy jigéen ñi nañu góor góorgóorlu lu yàqu ci askan wi lu yàqu ci njaboot gi lu fi réer ci mbaax rek jeex ko ci jigéen ñi ñooy sabab bi euh, kon ñàkk déggal sa borom kër problème mu sey la yo xamne ne ci jigen ñi lay joggé jigen dañ ko day day dégg ndigal bayil nga bàyyi te doo tongoo do mer sa jëkër def loola lu la neexul dem loola foo xam ne fo foona dem mu ne la dem fa mala jox ndigal nga dem fa dem bo xamne ne du and ak jabatu du and ak it mer du and ak jëppis ndiku ko waye jëfë ndigal lo xamne tam da ngay pare di jabatoo ka xulto ka merit amul njariñ danga koy def te yàlla tax damay wax oustaz Abdallah xam naa sama heure soreetul dama wax ne ginnaaw bi yàlla farataalee akub yonentaam li ñu farataal araamal li ñu araamal li des ci àdduna doon ay mbir yu dagan yoo xam ne bu la neexee def bu la neexee doo def nest bàyyi ak jëkkër ñoo fi desati ci biir mbir yu dagan yooyu ñu mën a fekk lu daganoon Sen kaddu tax mu aram ci sen njabot jeuker am lu daganon yow ci yow mu téré lako day daldi di lu aram am lo xam lu daganon la sa jeuker digel la day daldi di farata baye ak yaay dong ñoo am doole fekk lu daganon ñu def ko lu ab farata bo ñemetu la bàyyi wala mu ñu def ko lu haram lo ñemetu la def ngir sen digel. loolu na ko doom yi xam na ko jigéen ñi xam ñaareelu problème mu sëy buy jóge ci jigéen ñi mooy xeeb sa boroom kër ak mm, gis ne daal kii doo du san doo nawleem xeeb ko ngir yaa ko ëpp alal xeeb ko ngir moom dangaa gis ne daa bàyyi seexe lool te yow ngay jongo joo xam ne jomb nga ko xeb ko ngir juddu deng ko gën juddu deng ko sarax rek ngeen and ci sey waye bu doon juddoog juddu du taxaw nga taxaw ak mboolem luy sabab nit xeb nit sa yo naree gur ak góor goo deng ko danga te xebel gogu danga ko nar a dund ak mom sey bobu yow jigen bu ci dugg parce que ay bakkar nga ci jele yudul jeex ak dom yoo xam ne kenn du leen naw ndax dañoo ne jigéen bu xeebee jëkkëram mënul jur ku ñu naw mënul jur ku ñu naw su dee daa xeeb jëkkëram kenn du xeeb sa jëkkër jëkkër sang la benn euh, kenn ci taabiiyaat yi daa dégg ci jamonoom jigéen ñi di woowee seen borom kër yi seen tur di leen sàllalu ee eh, diwee eh. mu ne leen laa ilaha illallah ñun day daawuñu woowe sunuy jëkkër lu dul ci kàddu yi gën a rëy sama sang sama kilifa sama nangam nangam noonu de lañ daan woowe sunuy borom kër waaye eh, sa sa diwee yow manoo rek la yow Ah. xeeb sa boroom kër sikk la ci jigéen ñetteelu sikku sëy biy jóge ci jigéen mooy bari lu muy gàntal borom këram ci kaw lal bi damaa gëmmentu damaa sonn santiiruma ko tey waaw jigéen boo xam ne du sooke mukk waxtaanu guddi saa yu la sa borom kër soxlaa moo lay fekk te léeg-léeg mu fekk si la nga gàntal loolu sikku jigéen la ci sëy boo xam ne bari na muy indi ay problème yoo xam ne day naqari ku ku góor ki te euh, am na problème yoo xam ne wax ko yomb na mais am na problème yoo xam ne góor da koy muñaale mu mu koy sonal te du du du day day néew ay occasion yu mu ko mën a waxee ndax góor day rus di wax ak moroomam naan sama soxnaa ngi biig maa ngi ko soxla ba pare mu mu tas sama yaakaar ba pare gàntal day dem day rus a dem di jooytu loolu ci ay moroomam da koy rus a jooytu ci ay waajuram da koy rus a jooytu ci ay waxumaan ak ay waajuru soxnaam ndax du du la neex a nettali te loolu ab euh, pilier bu mag la ci pilier yi neexal néegu sëy euh, soxlante bu amee mu yomb ci ku góor ki ak ku jigéen ki yëpp waaw def ko it ak xol bu neex hmm? bokk na ci sikk jigéen ñi di waral problème ci sëy yi mooy Eh, Sagan ci kër gi lu ñu jënd mu yàqu toj yàq voilà ku góor ki sentir ne li andi ci kër gi amul ku ko taxaw tayal ak salte sikku jigéen la buy andi ay problème weddi lu baax lu la sa borom kër defal boo meree ne ko mosoo defal dara amoo njariñ bi ci mujjé moy gàttañ lu lol ci say mbokk jëkkeur amo yëk ci sa wajuru jëkkeur ci sa yaayu jëkkeur ci sa baayu jëkkeur mbokk sa jëkkeur kenn du ñëw ba nga ubbil ko kanam kenn du ñëw ba nga teral ko yow dal yow yaak sa jëkkeur rek mom dong nga des ci famille bi mom dong nga kippé ñeneen ñi sa yoon nekkul ci ñoom lolu bari na lu muy indi ay jafé jafé sey ci euh, jigéen mbokk jullit ñi dañuy jeexal ci juróom wala fukki minute ginnaaw bi ñu yaatalee ci problème yi ñu tënk li nga xam ne mooy solution yi solution yi dañ koo xaaj ñaari xaaj ah, li ñuy tuddee mën na koo tudde ay solution préventive yoo xam ne maanaam day tax problème ñàkk wala bu amee it du rëy yi yi góor ak jigéen yëpp di gànnaayoo ba problème néew ci seen ànd nga xam ne dañ koy dund avant ñuy am problème yooyu bi ci jëkk mooy ragal yàlla kenn ku nekk ragal yàlla ci sa morom te xam ne seen ànd bii yàlla moo ngi koy arbitrer te dina leen ko laaj ëllëg yàlla dina laaj jigéen borom këram yàlla dina laajit jëkkër soxnaam ni mu dunde woon ak moom boo gisee yàlla ne yowmal qiyam ñaar ñi séqoon néegu sëy dañuy dawante mooy ne yàlla daa nar a àtte loolu kon nañu ragal yàlla kenn ku nekk nga xam ne la ngay def ci sa morom ba nga ko xalaatee la ko yàlla xam te bind nañ ko nag te dinañ ko àtte nag moo xam lu baax la moo xam lu bon la ñaareel bi ñuy yóbbaloo ñoom ñaar ba mu mën a néewal seen problème mooy kenn ku nekk di jaamu yàlla ci sa morom ah, li góor di defal jigéen yëpp mu jàpp ne yàlla da ko ciy fay dépense baag neexal koog bégal koog wéttali koog assisté ko yëpp nga gëm ne lii tuyaaba jigéen nit li muy sonn ci biir néegu sëy bi mu xam ne ay tiyaaba yu rëy la ko ci yàllay fay ñaar yi buñ koy doxaale rek ku nekk di nga sawar ci def ci néegu sëy bi lu baax buñ la ci defee safaan it di nga sawar pour muñ ko parce que da ngay xam ne muñ ko jaamu yàlla la bokk na ci solution yi nga xam ne buñ ko dundee mën naa néewal problème sëy kenn ku nekk xam li la war ci sëy bi nga di def lislaam ba mu farataalee sëy def ko utal ay àq bokk na ci liy néewal problème mu sëy mooy problème yële ñu xam yépp tudd ko kenn ku nekk di ko moytu saa yu ñu xëyee ñoom ñaar kenn ku nekk di moytu merloo moroom ma wala tooñ morom ma wala gàddul àq moroom ma wala def loo xam ne day indi ay jafe-jafe ci sëy bi ñoom ñaar ñëpp ñu di ko moytu yonent bi sallallahu alayhi wa daane gis nga lu bon ku ko moytu rek yàlla fegal la ko am jikko yu muñ gis nga mbokk jullit ñi jikko ji mënta ñàkk ci néegu sëy mooy muñ ay problème yu bari dinay am ci néegu sëy ñaari muñkat séq ko kenn du leen yëg góor loo am ci muñ ci néegu sëy xeeb ko jigéen loo yóbbaale ci muñ ci néegu sëy xeeb ko dénkuñu góor ndénkaane lu gën a rëy muñ ci néegu sëy dénkuñu ko itam jigéen bokk na ci solution yi nga xam ne day préserver day garder néegu sëy ba ay problème du ci am mooy jaamu yàlla jaamu yàlla julli jàng alxuraan ci biir kër tudd fa yàlla lu bari digle fa lu baax tere fa lu bon muy kër goo xam ne dafa néew luñ fay jëw dafa néew lu luñ fay fen dafa néew lu fa awra di feeñ dafa néew luñ fay dëgg musique jaamu yàlla lu mu gën a bari ci biir kër jàmm gën faa am mooy yàlla lu mu gën a bari ci kër julit ay safaan gën faa am yonent bi sallallahu alayhi wa daa wax ne إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكسر خيره أن يقرأ فيه القرآن منكر جلد لم خط خط دنيات نيخلول تنفدك ملاكي دفكو سين توبو كاي فو ملاكا ناوي رك نيو توب تبير كرغوغو mune ne yi di daw kër googu mune xéewal bari fa lool naqar ak safaan néew fa lool mune bu dee kër julit la bu ñuy jànge alquran mune ne waaye kër danay xat lu mu yaatu yaatu ci ña fa dëkk malaaka yi di ko gàddaay yi def ko seen grand safaan bari fa lool bu dee këru julit la boo xam kenn du fa jàng alquran boo gisee ci suratul baqara bi yàlla yi wax ci sëy ak ay problème am di dënk góor ñi di dënk jigéen ñi daa dem ba ci diggu aaya yooyu mu ne ratt taxaw ne xaafizu ala salawaati wa salaati al wusta wa quumu lillahi qaanitin mu sog a continuer di waxaat ci néegu séeg ay problème am mu jël aaya digle julli dugal ko ci biir diggu aaya yooyu pour won la ne lu problème mu kër bari bari su seeni borom nangoo jaamu yàlla di julli guddi di fa tuddu yalla problème yi man na dem ba jeex tak ndax inna salata tanha anil fahshai wal munkar contrôler sa bop jamono yo meree xam loy wax xam loy def dinay néewal ay problème sey di ñaan yalla yalla def ci sa sëy def juboo sa digganteeg sa njaboot bari loo koy ñaan yàlla dinay dindi ay problème u sëy di ko néewal yàlla daa tagg ci alquran ci suratul furqaan ne wallazina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun bokk na samay jaam yi ma gërëm mooy ñu bëgg jàmm ñooñu nga xam ne même bu ñuy julli lu ñuy ñaan dañuy tàllal yàlla loxo naan yàlla yàlla nag ñu defal jàmm defal ñu ndalam xel defal ñu xol bu fiix ci suñuy soxna ak suñu njaboot dañ koy ñaan yàlla xam nga ku ku ku loolu doon yitteem ba mu koy ñaan yàlla xam nga ne dina dina wo luy indi jàmm ci néegu sëy kon ñaana ngoog loolu mooy problème maanaam solution yi nga xam ne yo yoo xam ne dañ koy dénk julit mu saxoo ko avant problème yi am bu boobaa problème du am wala bu amé bu ndaw lay doon du nakaré régler bu problème amé ba pare nak su problème amé ba pare jafe-jafe am ba pare solution yi bi ci jëk moy nañu waxanté loolu jafe-jafe bobu nañ tok wax ci bu kenn ku nekk tok rek nopi ndax luñu xamul deesu ko safara ñaarel bi ñaar ñi sekk sey bi yëg ne problème am na kenn ku nekk yittewoo luy régler problème bi waaye bu dee kenn ku nekk daane sama yoon nekku ci bu bu ñu bu ñu juboo baax na bu ñu juboowul baax na je m'en ñaare problème bu mel noonu day mujj ëpp loxo mën naa indi sëy bu tas ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daane su ngeen bëggee gis jigéenu àjjana buy dox ci kaw suuf te deewagul su ngeen ko bëggee gis na ngeen joxoñ jigéen boobu nga xam ne bu ko jëkkëram meree bu yéene jëkkëram meree na ko dootul am jàmm day ñëw ba fekk ko mu toog mu sukk jël lexam teg ko ci kaw ci kaw poojam ne ko duma lekk duma naan fekk baaluloo ma nee na bu ngeen bëggee gis jigéenu àjjana ci kaw suuf nangeen joxoñ jigéen boobu pour yi won la ne jigéen ak góor yëpp bu problème amee ci sëy dañoo war a yittewoo lu koy saafara ñetteel bi mooy ndànku ci régler problème yi boo nee problème am na tey laa koy régle tey lay jeex tey kenn dootuma yab tey kenn dootuma def nangam problème boo mën naa ëpp loxo gis nga tey yenent bi nee na dafa dafa ne du nekk ci dara lu dul da koy yombal taaral ko ëppal ak yàkkamti doo ko booleeg dara lu dul da koy sikkal ñaawal ko jabar dinay mere jëkkëram ba poñe ko ne ko do fi jóge te mayo ma sama bat. waye mu dajé góoru yaram day ree ko wa may ma bok da ngay dag sama sama bul ma yaa may xoj di da may rey da may gañ do fi jóge te fase wo ma la wax wa xaaral bok ma waxtaan ndax ko ne wa xaaral xana dinay am ay seede bok ki ba gif am ki am ñu andal waye kàccet kàccet rëccu rek ci mujj ñaare bu la sa soxna ërtal ci ñaan baat ba nga may ko ko ci taxaway boobu xaaral lo mer mer teyal après bo xolé waxtaan ba ki boy jël décision nga décision ci kaw mer néew na lu muy am tawféexu baax ak ndax ku mer du muus ah, pare bu jigéen di pare toujours pour ne baal ma danay régler ay problème u sëy na jigéen ñi xam ne na jigéen ñi xam ne góor merewu ko tàngewu ko bonewu ko ba nga sukk say oom ci wetam tiin xool ko say bët ne ko tey nga ma baal jigéen rek la yéen góor ñi toog fii yéen laay wax kan moo fi mën a muñ baat boobu te baaloo borom ah ku mu doon na nga xoolaat sa xol de xol bu xomaat xol bu tëju xol bu soxor ba jigéen defal la loolu nga toog naan kan ah fii ngay mujj nangam nangam danaa xool yow xamoo ma sax nang yaay kan ban xol mooy xol boobu bokk na ci liy réglé problème mu sëy bu amee mooy góor pare pour lu tooñ rëy rëy rëy mu baal ko soxnaam maa ngi wax ak keroog benn góor bu am ak kii def ma saaga def saaga def taqul ci dafa mer rek sama yaay ci sa yaay saaga jógewul dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daane ka saaga saagawul kële moom boppam la saaga mom mom ci saga la saga la japp ne bu ko defé ci lay faje meram jumna na saga la te batay tey mu lay bëgg nga ne abadan sey bobu jeexna nga gis yaay ki comme def ma saga kay man kay koku dotul man kullu bani aadama khata saga reyna na saaga saga na waye nak nit matul nit matul waxuñu lii pour faral jigéen ñi saga waté waye nak nit matul yonent bi sallallahu alayhi wa daa wax ne amul lu gën a rëy ci yàlla mer bu nit wannaasu boo xam ne bu ko neexoon mu réagir waaye mu wannaasu ko ngir yàlla nee na loolu amul lu ko gën a rëy pay ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne mer nga mer goo xam ne bu la neexoon nga réagir def lu la neex te kenn du ci mën dara nga muñ ko te yàlla tax nee na xaw ma ban tànkay tarxiis ci kaw siraat dugg safara waaye sa tànk du ci bokk yow na mer dafa am solo wal kaazimina al gayda wal aafina an innaas laayante biir ci néegu sëy bu mer amee soxna si wax ak borom këram diw man jigéen la man awma ko dul yow man dama dama bàyyi ñëpp ngir yow man man man tee nga xool ci njaboot gi ku góorit bu bu ko jigéen soxnaam mere problème am mu ragal loo ko yàlla bàyyi loo ko ci njaboot gi suñu àndee ba teqalikoo suñu njaboot gi fu ñu jëm da ngay dem yóbbaale ñenn ñi ma des ak ñenn ñi te kenn ci ñun ñaar mënul wét yar njabootam nangam nangam nangam tee ngaa xool ci lii xoolal ci lii xoolal ci lii xeeti waare yooyu ak yeddante yooyu am na solo lool ci ci problème amee bu problème amee nañuy diisoog borom xel yi ci sey di ñom bu problème amé ci sey bokk na ci solution yi ñu delu ci kilifa yi bi ñuy ñaanante di mayante man na am jakk ja sax ñu fa dañoo yonne won yonne jakk ja délégué ay ñeneen kon bu problème amé buñ ko régleel suñu bop nañ delu ci kilifa ya nga xamné ne ñoo ñaani won ñoo fasante won, wax leen problème bi ñom buñu dajé yalla yàlla in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma kilifay sëy suñu dajee te bëgg ànd bu rafet am nee na yàlla dina leen defal tawfiq ànd bu rafet amaat allahuma allif bayna qulubina wa aslih allahuma zaata baynina wa jannibna shiqaaqa wa nifaaqa wa suu al axlaaq yal na yàlla barkeel suñuy sëy te rafetal ko te yombal ko ni ñu ànde ci suñuy néegu sëy yal nay ànde noonu ba aljanna yal na bu benn góor tax ëllëg jabaram di dugg sawara waaye yal na bu benn jigéen tax ëllëg borom këram di tàbbi safara ngir àq yu mu ko yoral yal na bu ñu tas sunu yaakaaru njaboot ni ñu juddoo ñun diggante ndey ak baay fekk sunu yaay ak sunu baay ñuy sëy di ànd ànd bu rafet loolu yal na buñ ko xañ sunu njaboot ñu naan kon sa baay ak sa yaay ñoo àndoon waaye dañoo mujj nii nii nii nii loolu yal nañ ci yàlla musal eh, ñu ngi ànd di gërëm ñëpp ci celleerlu bi ak rafetu topp bi di ande itam di gërëm assasatul xalam ci seen liggéey bu rafet di ande itam di gërëm délégation bi ñu àndal ñu gunge ñu jóge ba campement nga xoox te yàgg ànd ak ñun ci jataay yi di gërëm itam ñiy jël jataay bi te war koo tasaare pour mu jariñ àdduna bi yëpp ñëpp jariñoo ko yal na yàlla yokk leen kattan yokk leen tawfiq defal leen wér wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين كن بوكي نيغي سانتات سونو بوروم سبحانه وتعالى بيم نيو يومبالالي ñu déglu waxtaan wi ba mu jeex mu joxe ko ci anam woo xam ne bu am solo la koo xam ne luñ mën a dégg bu baax loo xam ne comprendre nañ ko bu baax ci làkk wi nga xam ne moom la doon waxe muy wolof kon ñi ngi sant yàlla tabaraka wa taala euh, waxtaan yu mel nii nag xam naa yaakaar ne buñ ko doon misaal dañu naan ak feebar la boo xam ne amaguñu woon vaccin am wala vaccin mi ngi fi woon waaye xamuñu ni ñu koy jëfandikoo waaye kon nañu naan rek am nañ vaccin bi léegi kon nañu dem rek jëfandikoo fu feebar bi daal di dal di wér kon loolu mooy bi ñuy misaale waxtaan wi bu ko defee buñ bàyyi koo rek mu dem jëfee ji wala bu ñu gis mu mel noonu rek ñu daal di jël tomb yi jëfandikoo ko pour mën a régler problème yi ci biir kër yi problème yi nga xam mo am ci koñ bi problème yi nga xam ne moom la dund ñun ñëpp en ay jullit ñu bayyi xel ay tomb yo xam ne wax nako ci debi waxtaan bi wax na ne nit ki bala nga doon dara muy goor muy jigen da dik ka doon borom keur bu de goor nga da nga dik doon borom keur xam nga yu bari day xew ci sey moy nit ki dem na di liggey mo xam jigen na wala ko goor gi la liggey bobu jural ay jafé jafé te fekk doom bi nga doon borom kër moo jiitu doom bi nga doon ak liggéeykat wala leneen ndax liggéey bi ci la séminaire yi di juddoo damay dem séminaire dama am réunion dama am nangam yooyu yëpp nga jiital ko bàyyi li nga xam ne moom nga jëkk a doon balaa ngaa nekk loolu kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax loolu jàpp naa ne waxtaan bi yëpp ci yemoon rek day jeex solution yi mu wax itam euh, bi nga xam ne moom lañu gën a bàyyi xel mooy ragal yàlla subhanahu wa taala mooy rek le problème bu sëy ragal yalla bu fekke ne yalla lañ tek suñu wet lepp li problème ñu tek suñu kanam xol li yalla wax li yent bi alayhi wasallam wax problème yi day jeex ndax man damay nangu kuma delo ci alquran damay nangu kuma delo ci sunna yent bi alayhi salaatu wasalaam waaye xel yépp su problème amé fi lañu takké ci jakk yi waye buñ paré mom ci tribunal ba lañuy mujj kon lañu ragal yalla subhanahu wa taala moy solution bi gën reuy pour mën régler problème mu sëy kon incha allah foofu la ñuy tënk ñu bàyyi. ñaari ñaari laaj incha allahu taala lu jëm ci thème bi buñ paree dinañuy jox parole euh, imaamu gox bi wala ki muy jox parole bi mu waxal ko incha allahu taala euh, bu ko defee ñu jox amiru la alqalam moom tam mu jël parole incha allahu taala kaamil yi tam dina am ñu ko jox ci notable koñ bi bismillahi tabaraka wa taala kon ñu ngi sant borom subhanahu wa taala di ñaanal ñëpp euh, di wax rek ne am na ñoo xam ne ñu fi teew la ci ñi nga xam ne ay délégation lañu ci gox bee nga xam ne fa la siège de la nekk ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii nga xam ne mën naa la wax ne euh, siège bi lu ci ëpp doole fii la defee ay liggéeyam ba taxu fële euh, bokk na ci ñi nga xamee ne ñi ngi fi nekk ay notable mooy Vieux Sarr mi ngi fi ci notable wu wax bi ci la bokk ak Abdoulaye Seck ñu ngi leen di dalal ñoom ñëpp ak sunu papa Soumaré waaye tam ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo teewal maire muy David wala Daouda Sarr mu nekk adjoint maire ak ki nga xam ne moom mooy imam bi fi teew imam Deme imam Diagne ak euh, waaw Thierno Fofana moom tam mu nekk président ci ñi fi garde ci gox bi ñoom ñëpp teew nañu fi ak sunu yaay maire Aïssata Aj waaye tam ak euh, sunu yaay Dieynaba Aj ak soxna si nga xam ne moom tam muy soxna aja ngom ak la laabilim yëpp ñi nga xamne ne nañu fi ñu leen di san di leen gërëm ak euh, délégué de carte bi nga xamne mom moom na ko sank muy Ousmane Wade mom tam teew na fi waye tam ak benen délégué bi nga xamne ne fa la siège bi nek muy euh, Jaafar dafa dafe mom tam teew na fi ak mbolam ñi nga xamne ne nañu fi ñu leen di sant di leen gëreum ñaan borom bi tabaraka wa taala mu bindal leen yiw bindal leen tiyaabu ju bare bari ci seen kon am nañ mbégte lool la clip am nañu mbégte ak kontante ci ñaari gox yi nga xam ne daanaka suñuy activité lu ci ëpp lay xam ci gox bi wala ci wax naan kon ñu ngi sant borom subhanahu wa taala di leen ñaanal yàlla leen leen ko insha allah dañuy jublu rek ci ñaari laaj yi nga xam change may ñu joxe insha allah wa rahmatullah abu Ah. Microbi. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó tó ní mí náà ní Allah subhanahu محاضرة وأم صلى بين كده من الجالن يال آه، خير ولا نداري نعمه لما نقول لهم شيء بين آه، كيشون اللي هو سانك تيوان نقول لهم نكون تقول له برفع مانك مجيل دشي دشي فين نقول له أجمع جيل بو هم لو بره بره من يجي تلك حديثه تنقصون معه فجي آه، دين لا جمالها نسبها أجمالها خوفه بجيل بو نحن نكون نقول دعالي في حديثه parce que li nga wax dëgg-dëgg dafa am léeg-léeg nga gis nga naan ñu maye yow mii am ak ceetlu rek ci commencement sëy bi rek dangay gis ñàkkal fayda bu kenn ci ñoom bi ñàkkal fayda keneen ki da nga xam ne fii bëggee manqué na bu fekk am na fa mhm. parce que ñaar yu bëggante rawatina ab ci ci ceet seddante waru faa mën a am benn euh, seddante bi mhm. léegi bëggeel boobu ñun ñi nga xam ne dañu dañu dañu naan dañuy dund sunn nga xam te ni ni ñeneen ñi def parfois duñ ko mën mooy ñeneen ñi dañuy génn ay trois ans quatre ans doo ko takkante ñun dañuy bëgg ci lu gaaw rek nga takk euh, te ñaare nga baal ma ci guddaayu laaj bi ñu bëgg mu leer rek ku ko bëggee may soxna ñaare day am problème est-ce bëgg a sëy moo ko dugal ci mbir mi wala na laaj bi leer na. Ah, ngi jégalu bu fekkee am na benn kàddu boo xam ne xaw na ci ñàkk euh, woon rek. déedéet salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. laaj bi amna amna solo xam nga ñun ci walu diine leg leg ñu wodd ci kaddu yi wodd yo xamne day tax sax li nga bëgg laaj du leer ki tontu leg leg mu wodd kaddu yi wodd bo xamne day tax li muy tontu du leer ni ñi muy ki tax euh, faram fàcce amna solo legi